aousubillahi min seytaan rajim je suis ala à wal mursalin muhammadin wa ala wa suis ajmain internet ngi leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ñu ñëwaat ak yéen ci seen chaîne bi nga xam coranique les grands secrets nga xam ne waxtu wu nekk ñi ngi séddoo ak yéen yenn ci xam-xam yi alquran yi nga xam ne képp ku ci mooyu te di ko jariñoo yàlla dina def sa jàmm ak sa ko ci sa mbooleem itte te nag ñu ñëwoon ak yéen ci xaatim bi ngeen di gis nii nga xam ne xaatim bu am solo la macha allah nga xam ne li ci nekk ci ay ngëneel ci ay mbóot ci ay secret yoo xam ne nit ki nga xam ne li ko yitteel mooy garder place mooy bëgg liggéey mooy itam di def loo dugg rekk mu yàqu xaatim bi mën na faj sa ajo xaatim bi nag li nga xam ne moom mooy njëriñ li bari na waaye itam li ñu leen mën a wax rek mooy xaatim bu boo xam ne la képp ku ko jëfandikoo rek incha allahu yàlla dana def sa yokkute ci zaahir ak ci baatin comme ni ngeen ko gisee nii ci foy bi nii la koy borom di bindaatee ki ko bëgg jëfandikoo nii la koy bindaatee boole ko li nga xam ne moom mooy reno kànja ak itam juróom ñaaru juróom ñaari guru yu weex ak juróom ñaari guru yu xonq waaye nag comme ni ngeen ko gisee niñ koy dugalee nii xaatim néew lu la neex rek nga dugalee ko ndax nii lañ ko war a dugalee bii ngay njëkkee soo noppee nga teg ci bii soo noppee nga teg ci bii soo noppee nga teg ci bii gannaaw boobu nga def bii soo noppee nga dugal bi soo noppee dugal bi dugal bi ñett yi nga xam ne ñoo nekk ci digg bi ñoom ñooy mujj soo ko defee ba noppi incha allahu da nga koy jël nga suul ko foo xam ne waxtu wu nekk dafay tooy moo xam mu ci buntu géej wala itam nga sànni ko ci géej incha allahu bu neexee yàlla ak yonent bi lépp loo xam ne sa yitte la allahu di nga ko am ci ni nga ko bëggee tur yooyu nag ngeen doon dugal néew tur yoo xam ne rek maanaam nombre yoo xam ne dañ koo jël rek dugal ko waaye turu nit la yow mi nga xam ne yaa ko jëfandikoo sa tur moom lañu xisaab moom la ñuy dugal foofu kon ngeen déggoo ko noonu ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ji doon seetaan leen ñaan bu baax itam ngeen. abonné ci suñ chaîne bi di leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla itam di leen wax ne ñi nekk ci lali hôpital yi na yàlla yëkkati leen ci jàmm ñi nga xam ne ñoo nekk ci prison yi yàlla na yàlla génnee ci barke alquran yàlla na yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla def jàmm Sénégal def ko ci àddina bi yépp ñu ngi sant ñu ngi gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi min seytaan rajim bismillahi